asalaamaaleykum mbokk internet Lutte TV comme ni nga ko doon waxee saa su ne rek seen émission nag soo ma gisee fi taxaw nii maa ci fi nga xam mooy parcelle unité ñoom nag dañ fay organiser benn fan zone gis nga sama ay a gis ci ginnaaw yéen a ngi dégg asiko yi way yi ñëpp ñëw nañ macha fas yéene seetaan matchu Sénégal ak ki nga xam ne moo dox ci digganteem ak Côte muy match boo xam ne xam naa ni dina nekk match bu nar a metti match bu nar a neex mais incha allah rabbi ak lu ci mënti am rek incha allah Sénégal jël ndam li dem ñoom fas yéene ñu dem daje ki nga xam ne mooy Cap ci quart de finale yi incha allah rabbi léegi nag duñ def lu dul dem wan leen lépp lu fay ambiance wan leen lépp lu fa xew waxtaan ak gars def suñu interview waxtaan ci match beeg lépp sama lépp li nga salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam tur beeg sant bi. Mouhamed Mbaye. Mouhamed mbay Modou Mbaye. Mouhamed Mbaye ñu naan ko. Modou Mbaye. ñu naan ko Modou Mbaye. waaw Mouhamed Mbaye tey dañoo ñëw fii ci unité 5 fekk leen ngeen organiser seen fan zone gis nañ ñëpp génn nañ macha allah asiko yeeg ak lépp te tey match bi lan nga ñuy wax ci match Sénégal Côte waaw damay wax ci génn bi nu génn. Uh-huh. ñëw fii pour ànd ak euh, waa koñ bi. Uh-huh. ci jëmmal euh, taxawaayu dëkk bi. xam nga yonent bi moo ne xubul watani minal imaani ba sa réew daa bokk ci gëm yàlla ni amal li dunya ka ka annaka ta'isu abadan liggéeyal sa àdduna ba mel ni dootoo dee loolu bu ko waxee kon àdduna am na importance looloo tax ñuy taxaw di teew fii ànd ak uh, waa koñ bi pour mën a dooleel gaynde yi ndax bu bu nu gañee jàmm day am ci réew mi te jàmm fu mu amee xéewal day wàcc inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim waaw yàlla du suppi yow ni tànk suppi mu suppi koo àndandoo nekk mun na ko def sport mun na boole ñu jubbool woon sport mun na indi jàmm ci réew mun na indi ñu daal woon laale laale kon kon rek moo mën a boole waaw sport rek moo mën moo mën loolu moo tax ñuy ñaan suñu borom dafa ñu ndam incha allah mu sedd guy defal ñu li gën ci réew mi bu ñu dema dema dem ba gàdduwaat coupe bi ci kattanu yàlla li nga xam mooy faalu li maa yurid moo ni uddu lakum daje bi daal li ko waral mooy dooleel gaynde yi ñu gën a góorgóorlu wane ne ay gaynde lañ mhm. ay gaynde seen i moroomi góor lañ ko seqal mbirum góor la fukk ak benn fukk ak benn ak góol góol kon affaire bi waaw da ngay gëm li nga nekk rek. incha allah muyee la mayo. waaw loolu loolu la. te booy incha allah dinañ muyee la mayo sax nag te dinañu indil ndam waaye ñun loolu la ñuy ñaan xam nga yàlla mooy def lu ko neex te mooy aalimul xëy bi moo xam liy ñëw waaye njort nan rafet am na am nan njort lu rafet ni bu nu yà li ñuy ñaan yàlla ko nangoo comme moo ne ud'uuni lakum te ñu ngi koy ñaan kon dana nangu ndax la in shakartum la azidannakum lakum ñoo ko jëloon bi passé di sant nu war koo war a jëlaat ndax mu dolli ñu bare la in shakartum la azidannakum sant nañ ci ñu ko jox ñu sant bu baax te dañuy sant sant day dolli te ñun gëm nañ dafa ñuy dolli ñoo bëgg dañuy sant pour mu dolli alhamdulillahi allazi hadana wa ma kunna lahtadi lawla an hadana allah yal nañu yàlla jotale ci coupe ci jàmm ak amiin jam, lépp soxna si maaleykum salaam tur beeg sant bi munas job munas job munas job tey dañ leen a fekk fii 5 fekk leen ngeen organiser seen fan zone lépp pour supporter gaynde yi ñu daje Côte d'Ivoire tey lan ngay wax ci match bi nañ ci wax dafa neex monsieur waral moom moom amuñu fayam ca kaw ca kanam rek billaay walaay dëgg lan ngay lan ngay ñaax yi waa gaynde yi ah. ah yokku cere dolli ñeex rek yokku cere oh, dolli ñeex billaay ah. ñun moom am nañ yaakaar ci ñoom wax dëgg yàlla am nga yaakaar ci ñoom bu baax waaw bu baax a baax yaakaar naa Sénégal moo mën Côte d'Ivoire fuuf de waaw ah, du moroomam sax moroomam de ay 5-0 rek incha allah 5-0 nga joxe yow kese bu soobee yàlla yàlla na la yàlla dégg merci beaucoup asalaamaaleykum cheikh bi maaleykum salaam tur beeg sant bi Tamsir Top Tamsir Top mhm. euh, Tamsir Top yow

dem ba ànd ak équipe bi jël coupe bi indi ko jox ko président Macky Sall jox ko sénégalais yi loolu lañ koy ñaanal yàlla di am kontaan bu baaxee tey tey nan nga gisee match bi lu toll ni Sénégal di daje ki nga xam ne mooy Côte d'Ivoire équipe organisateur bi tey gis nañ ci difficulté yi mu jaar yëpp ba qualifié tey mu dajeeg Sénégal ci huitième de finale waaw loolu moom danaa parce que toujours li may wax rek équipe man bu man en général équipe bi nga xam dafa génn génn a doy waar man a tey soo xoolee machine nun demee nga xam ne machine tey métti na sénégalais parce que milliardaires yi ku def boo xoolee xam ne gars yi waa kii ivoiriens yi xaw nañu ko équipé tuuti mais incha am naa yaakaar ne match bi 2-0 lay mujj bu soobee yàlla. ah loolu nga joxe espoir ah, waaw loolu laa joxe incha allah loolu am naa si yaakaar ah. incha allah am naa si yaakaar. merci beaucoup ok jërëjëf waay. waa Cheikh bi maa ngi lay siyaar. di lay bëgg bi wér wér wér. tur bi Ali Ali. Ali ah. Ali yow tam ñu ngi la fekk fii Unité 5 ci fan zone bi. Ali tey nan nga gisee match bi. waaw match bi moom métti na trop métti na trop trop malgré nag ñoo mu ne quoi. mais franchement Ivoirien dañoo dañoo dominer 100 pour cent quoi. métti na trop nag. mais xëy na ñoo war a domination. bon parce que nag gars yi dañoo xaw a euh, mel kuy bàyyi xel Ivoirien yi quoi dafa mel kuy bàyyi xel ivoirien yi. maanaam su ma la déggee dëgg mooy Sénégal dafa mën a ba pare bàyyi. doyal doyal doyal doyal. mais mais est ce lii doyal nañ. non doyal la. Ah. bi aussi yëpp wane nii nii. ah beneen deuxième bi ah, non doyul sama xel quoi beneen beneen deuxième bi ah. bu na a baax na quoi. incha allah incha allah rabi ma score.